di baalu àq ñëpp di baalu àq ñëpp si weeru koor gi waaw tey dama ñëw jaale ci Modou waaw papa moo génn àdduna muy suñu confrère ñu bokk métier bi tey lépp dafa rafet jàmm lañu fekk à part à bi donc bu ñu déggee tiis bu toll nii nit bu ñàkk sa papa ak nu mu méttee foofu ñu ñëw masawu ko bokkoo moom tiis bi bokkoo njaboot geeg yëpp waaw ñëw lañ jaale ko rafetu na ko ñëpp rafetlu na ko te loolu mooy yoon. ñu ñoo bokku ndey bokk baay waaw. loolu gis nañ fi am na récemment ñu fi amoon ay dëj gis nga ñëpp dañoo ñëw te Modou ba amee dëj foofu ñu ñëw loolu yàq dara ci adversité bi ñu ñëpp ñoo far dañuy liggéey suñu métier la mais nag dafa am tiis te tiis bi foofu ñu ñëw ñun ñi nga xam ne ñoo bokk métier bi ñuy def ñu bokk ak moom war ni ko ñu ngi lay masawu ñu ngi bokk ak yow tiis bi di ko bokk ak njaboot gi di ko bokk ak ñëpp ak fansa bi yëpp di leen jaale di ñaan ki fi jóge suñu borom xare ko àjjana yu kawe ci barke weeru koor gi di ko masaw di ñaan di ñaan yàlla yàlla na fi géej daal di ñaan jàmm bu baax waaw waaw dañuy wax ne rek ñu ñëpp ñoo bokk ndey bokk baay te ñu ñoo war a mayante xaalis waaw Modou bu bëriwul ak benn adversaire am du am xaalis man tamit noonu donc il faut ñu bëri pour am xaalis parce que mooy suñu métier mais bu lépp jeexee nag loyauté day ñëw amitié ñëw jàmm ñëw sénégalais ñëw citoyen ñëw te loolu moo ëpp doole bu baax moo tax ñëw nañu masawu ko masawu njabootam masawu ñëpp yaa ngi dégg gis nga couvre affaire bi moo doon xam nga ak feebar beeg yooyu moo tax gisoo fi ñëpp sax mais am na ñoo ñu ngi seen kër mais seen xel a fii ñëpp ñu ngi fi ñu ngi marsa bu ñëpp xam nga di ko di ko ñaanal suñu borom xare ko àjja ki fi jógee di ñaan affaire bi gëj fi di leen ñaanal jàmm bu baax di ñaanal parcelle ñëpp jàmm jërëjëf merci